rajo Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun euh, waxtu ànd ak yéen seen émission xalaas suñu journal fait divers jot na ñuy am mbégte bu baax a baax di ci ànd ak yéen journal fait divers bi fii nga xam ne fi la ñuy déggee yu garaw yi fi la ñuy jàngee ci àdduna fi la ñuy xamee fi la ñuy ràññee lu bare bari euh, ci tolluwaayu jamono jamono jekk ni muy doxee xalaas ñu di ko suivre fu nekk ci réew mi ci bitim réew en tout cas ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax dellu gërëmaat inspecteur Mamadou Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax Ndoye waaye sama waa maa ngi lay ziar bu baax a baax ànd sa goos bi. Eh, dafa nekk ci yitte nag. ah ci yitte. daa ah, nekk ci yitte yu am solo sax ah, kay yu am solo sax kay. waaw gos bi day mu ngi noonu rek. Ah. di ziar pass di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi déglu rek ñi ci internet yeeg ñi ci biir kër yeeg. Mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ne sunu yeewoo. Mm-hmm. lañ koy déglu ñii sunu wàccee. ak ñi nga xam ne ci yeneen pays yi nga xam ne heure yi bokkul nga xam ne guddi lañ koy déglu ñu ñaanal ñëpp jàmm yàlla muy yàlla borom jàmm yàlla na defal ñëpp jàmm ñu bëgg jàmm yàlla ne ne yokku yàlla yokk jàmm augmenté ci jàmm ji ci seen xel augmenté jàmm ji ci seen xol hmm. jàmm ci xol ak ci xel dina indi jàmm ci askan wi kon mais Ndoye Bane waaw dafa mel ne tendance bi daa changé waaw xam nga démb dama laa àll fii samay weer waaw nga takk ko ma foto la ci waaw jël photo bi dugal ko ci compte Instagram bu xalaas. waaw muy xalaas RFM l'officiel. waaw xalaas RFM l'officiel. waaw laaj say soppe foofa mais ban yow tey boo ne woon candidat ci eh, président yi. waaw ah di nga yënga réew mi. déet waay ah ah. ban tendance si soppeeku la. lu gars yi wax ah, sopp la rek. mais jigéen ñi yow demal xool jigéen ñee ma sopp man. même góor ñi sax. moom it may jigéen ñi ci ëpp. même góor gis nga bis ba nga ne. man man laal sa téléphone jëkkër sàcc la. waaw. <laughs> waaw keroog jigéen ca la ralliement yi commencé. <laughs> waaw ca la ma yenn góor gi yooyu waaw waaw jour jigéen ñu bari raté wu ah, mi ngi noonu àdduna demee noonu waaw noonu passe partout <laughs> Ndiaye yow moom dëkk la ñaam su nekk di ànd ak yow ci xalaas jaajëf sama waaj su ma nee su ma nee su ma nee xalaas ci biir xalaas ci biti hmm. danaa xam ndoy baan dina xam hmm. euh, dóoral ma kii ñu mën a déggante pour technicien bi nga koy laaj waaw ah, ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay ziar Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax baax di la gërëm ah parce fa laa yem. sama gala de bul <laughs> maa ngi nuyu baan di nuyu auditeurs rek internet yëpp di nuyu sama gars yi waa waa Carrefour gën naa nuyu trop. Hmm. ak waa marché poisson sama mère yi nekk foofu. tey moom ñoom ñun la ñuy bëggee de. fan la ci. waaw marché poisson. daa bëri marché poisson ban la. non bi nekk fii bi nekk Pikine. ah d' accord ah d' accord jaay jën. Mhm. waaw mairie dëkk dëkk man passe dëkk ba defoon bi nekk Pikine euh, directeur ba ak Thierno Mbengue. waaw Thierno Thierno Mbengue ñu ngi koy nuyu. Thierno Mbengue Thierno Mbengue ñu ngi koy ziar baax. Thierno day daa daa wax waxu jën wax waxu jën ba. waaw moom day jën Thierno Mbengue moo wax mu ni mareyeri mareyeri rek waaw jàmbaar la noonu la noonu la am. nit ko baax a baax mais également euh, Alioune Thiam également. Alioune Thiam Alioune Thiam waaw. waaw établissement Baye Niass moom it suñu waaju baax la. waaw waaw Baye Niass ñu koy gërëm bu baax ak Moutine. men moo amoon Moutine sama copain. buñ buñ fa toppee duñ duñ fi jóg. mooy sama waay euh, Aba. ca la mu nekk. waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi euh, ko cay gunge bu baax a baax. Hmm. Euh, di ko wax na ci kanam tuuti rek dana ñëw àndaat ak ñun. ci hmm. ci ci xalaas. may leen ma ma gërëm partenaire yi ñuy gunge ci xalaas doore ak téléphone bi yëngal jamono moo di Maxphone mobile. Maxphone téléphone la bu dikk ci ñaari gaam yu wuute te bëri njëriñ bokk na ci modèle Max 10 écran 6 virgule 6 pouces loolu mooy foo ko dégg rek mooy écran bu yaatu la. Hmm. mémoire 16 giga plus 2 RAM. appareil ña ña appareil photo bu bu leer nañ batterie boo xamante ne ji six mille sept cent milliampères la te li gën a neex ci euh, max 10 euh, bi mooy euh, reconnaissance faciale la maanaam face ID. nam na noo koy configurer bu la neexee mot de bi pour li tijji téléphone bi sa mhm. kanam lay doon. ci njëgu yomb nag. Mhm. bu weesoo boobu am na. modèle pour sàcc yi bañ koo sàcc. <laughs> waaw mi ngi doon. <laughs> ban ban. lay lay la sept code nga ci dugal sept code. waaw ma ngi woon ci baaraam ak schéma ak numéro ban maa ngi woon ci max 10 bi. <laughs> ma wax la max 30 pro bi nga xamante ne ji mooy le téléphone des professionnels. Ablaye mhm. euh, téléphone boobu li tax mu baax euh, li tax nit ñi bëgg ko mooy. Mhm. écran bu yaatu bi 6 virgule ba pare tey boo ko dugaloon ci ndox génnee ko dara du ca sikk. Mhm. mémoire 32 giga mu ànd ak ñetti raam. xam nga loolu day caaxaan. batterie bu mën a yàgg ba noppi Android 10.0 la mooy ma euh, max phone modèle max 30 pro. 4G connexion automatique di jël ñaari puce. ñu garanti la ko douze mois hmm. ñi nga xamante ne dañuy jënd di jaayaat wala ñu soxla ci information yu gën a yaatu ci télé euh, téléphone max phone mobile yi nañu woote ci 33 834 75 66 wala 78 568 08 98 78 568 08 98 beneen partenaire ci xalaas mu di plateforme transfert d' argent bii di seen wéew nga xam ne suñu mbokki diaspora ñoom ñoo ko moom ak seen wéew mën nañu yónnee xaalis te duñu fay dara yónnee xaalis ay soppe ci lu gaaw fi nga toog te doo fay dara hmm. euh, loolee lu neex la yónneel xaalis euh, télécharger application seen wéew ngir yónnee xaalis bitim réew mu ñëw fii ci réew mi ki nga ko yónnee moom it bu jotee ay notification bi ci li matul benn minute mu dem jëli xaalisam ci point wéew bi ko gën a jege hmm. moom it du fay dara te li ci dàq baan mu di cadeau boo xamante ne ñu ngi koy jagleel ñu njëkk a def envoi ak code bii di diaspora 5 euros lañ leen di may ci envoi bi. Hmm. beneen partenaire ci xalaas maa ngi la koy wax passe partout semaine bu nekk. Optic hmm. Vision plus Sénégal. spécialiste ci wàllu lunette xeetu lunette boo bëgg nag. Hmm. nee nañu euh, dinañu may xalaas. ñu dañoo war a teg sax fondation xalaas. ah. nee ñu daal dinañu jël kenn koo hmm. xamante ne ji xalaas boo leen koy présenté ñu defal hmm. ko consultation hmm. yóbbu ko ci spécialiste ñu seet ko buñ ko bindalee lu nekk ñu may ko ko semaine bu nekk kenn chaque semaine cent cinquante dix-sept ngeen di jokkoo ak euh, passe partout ngir mu jotaleen ci Optique Vision Plus Sénégal ay lunettes vue de près yomb lool quinze mille francs ay lunettes vue de loin yomb lool quinze mille francs ay progressif simple trente cinq mille lunettes ultra UV lunettes yu wàññi ñaawaay Mm-hmm. ah am na <laughs> lumière bleue am na une sur mm-hmm. mesure mm-hmm. ànd ak anti anti reflet ci gàttal Optique Vision Plus Sénégal dañu boole originalité fiabilité ak rapidité ñi ngi fi nga xamante ne ji moom mooy euh, fii ci boori hypermarché exclusive euh, Cyprès 2 téléphone 33 821 54 57 77 479 63 38 am nañu Mbour également Salikal Foot te lu yàggatul dara. Mhm. dinañu dégg Optique Vision plus Sénégal incha allah Kër Massar. Kër Massar dañoo bëgg a daj réew mi. parce que seen social am doole. am na solo ñu doxal tey mu dox dara Cheikh Abdou fi yàgg lool te wér. amiin waay lool te wér. amiin te ku ni amiin yàlla na nga fi yàgg lool te wér. amiin Cheikh Bassirou Abdou Khadir yàlla na fi yàgg lool te wér. amiin na nga fi te wér. amiin ndaw si ndaw si noonu téeréer. aram waaw. waaw aram la tudd. aram la fu mu dëkk. aram Guèye mi ngi dëkk mi ngi doon sëy Kaolack. waaw mais dafa nekkoon Kaolack am problème ak ay gorom. waaw mu jógee fa ñëw mbuur. tey goro yi. matu 30 minutes bu mu duggee ci kër gi. léegi nag mu daa dugg ci kër gi. Uh-huh. ka ko indi woon daa génn di ñibbi si Dakar. Uh-huh. yéegul péage bi sax ñu waxul ak ana aram. léegi nag xëy daa doxantu ji. aram nee na muy dimanche ba tey kenn gisul. njëkkee ma ko jaxase gorom de. non xaaral comprendre rek du dem comprendre waaw nga ne aram da doon sëy Kaolack waaw ba muy sëy Kaolack waaw mu dem ba toll en état ba commencé sonn mhm. di am problème ak ay goroom waa kër gi mhm. mbokk jëkkër ji dem Kaolack jëli ko pour indi ko mbuur ci seen kër mu toog fa noppalu seen kër famille ñoom ci kër wujju peccor ko maanaam ki ko jëli waaw waaw waaw jëkkëram ak euh, jëkkëru aram Kaolack doon sëy lañ ah, léegi ndaw si indi ko mbuur nag pour yóbbu ko seen kër xanaa daw cooleeg yooyu noonu. ñu ni ko muur mu topp pour noppalu bu ñu indee ba muur. Mhm. ka ko indi woon teg ko fa nag pour ñibbi si Dakar. Mhm. yéegu péage ñu woo ko di ko laaj aram. mu ne aram xëy na kon daa doxantu ji. wujji pertir goo ma ko jël ba tey waaw. ba léegi wujji pertir goo ba mbaa du ci am problème moom ba nii kenn xamul fu aram dugg téléphone am yóbbuwu ko yóbbuwul benn bagage. wujji pertir goo mbaa du ci am problème moom yow. lu baax de moo ko moo ko taxoon jóg waaw moom lu baax moo ko taxoon moo ko jëlee ci kër goro yi la ko jëlee fa mu nu amee woon ay problème waaw ca kër goro ya waaw ca kër ga muy sëy fu mu doon sëy waaw waaw indi ko seen kër fii mbuur waaw pour mu toog fa noppalu xëy na ba yàlla may ko boppam amoon na ndigalu jëkkëram amoon na ndig kon da ndig jëkkër jëkkër jee ko yabal jëkkër ji ma nga bitim réew waaw mais woo na ko boo xooxo mënu ko amul benn problème mu indi ko mbuur léegi kan moo wax ni moom ndaw si kii ko jëlee woon wuju peccorgo bi déglu waaw kii réer nii arm gay la tudd sama njëkke la mook sama jëkkër ñoo bokk ndey ak baay au fait dafa nekk jigéenu wérul ma demoon nag di ko jëli foofu parce que wérul woon daal xam nga rek jigéenu wérul dama fa demee di ko jëli nag jour boobu di dimanche bi mu demee amoon na fa nag tuuti jàppante mook goroom par la suite laa ko jël indi ko fii ci kër gi dañ ko indi rek en moins de 30 minutes mu génn dem depuis boobu ba léegi nag gisuñu ko ku ko gis na nga dimbaliñ ci ngir yàlla sonn nañ toro wër nañ ko fu nekk te jigéenu wérul amul feebar xel amul dara daa nekk jigéenu wérul rek xolam neexul looloo waral nag mu dem. déedéet yóbbuwul dara du téléphone du dara jëmmam jooju donc la yóbbu dara topp ko en fait ñun ñëpp kaw lañ nekkoon mbir na ba léegi moom muy say coofok par la suite am kër fii Grand Mbour ñëw tuxu si fi mais foofu lañ ko bàyyi woon. entre temps nag elle est tombée xam nga rek ak jigéen mu doon wax ne yaramam neexu day miir daanu te xam nga jigéenu wér na il faut mu am surveillance par la suite nag lañu waxtaan ak jëkkëram jëkkëram tamit wax dëgg yàlla may ñu ni mën na ñëw toog fii ba yàlla may ko boppam boobu nag ci lañ ko indee mbuur muy dimanche bërki démb la 23 bi ay vingt heures lañ ko fi indi balaa 21 heures dem na lii daal lañ ci am voilà mi ngi noonu xam naa ni euh, fii ak ngoon. Mhm. dinañ gën a ñu gën a pousse affaire yi. lan moo waral dem ginnaaw dem na. Mhm. te feebarul dara jotu ko dara jotu ko dañuy laaj ndax boobu ëmb bii ndax ëmb bu jëkkër jëla mhm. ah déet loolu yëpp dañ ko laaj c'est des questions yoo xam ni. Hmm. koy laaj. su fekkee eh, suñ jokkoo ak jëkkër ji dañuy wax ni lii. en tout cas en tout cas wut naa wut naa numéro jëkkër ji. waaw naa ne après. bu bu paree aussi maanaam jëkkër ji ndax euh, jëkkër ji ko ëmbal nga bëgg a laaj. voilà c'est parce que dem bi. xam nga dem bi mën na tax euh, que nii dafa am ku mu joteel. Hmm. Euh, wala yàlla tere yàlla tere yàlla bu lool am li may xalaat man yàlla bu am. Hmm. fekk nga def erreur feneen. mun na am lu muy la nga daw. nga daw laaxatu ji yooyu yëpp mën na mën na ci am mën na am tamit histoire la moo tax affaire am lu ko métti mu dem yooyu yëpp point yooyu yëpp euh, leeragul. pour mu leer man man gëm naa ne bu fekkoon ne ëmb bi feneen lu jógee fu dul ci jëkkëram kon dem na balay sori. Hmm. kon dox ci kër goro yi ba toll fii. voilà war a jotee goro yi. Hmm. goro yi moom goro yi amuñu problème maire yi amuñu problème maire yi. seen doomi jigéen ñi ñooy ñooy ñooy ay télécommande lañu. Hmm. doomi jigéen ñi ñooy batterie yi. doomi jigéen ñi su su nekkul ca kër ga dugg ji ci say problème du am. maanaam commande télécommande hmm. su amul batterie du dox hmm. maire bi mooy télécommande batterie yi mooy njëkk yi njëkk yi ci boppam ñuy dugg ci biir maire yi maire yi di réagir di zappe di zappe maire di zappe fii di zappe fee di zappe fii di zappe fee donc yooyu en tout cas fu mu mënti nekk de moom Armé hmm. fu dul ci ay mbokkam wala ci ay mbokki jëkkëram na xam ne nekk na fu mu warul ne ak état bi mu nekk donc na dem ci ay mbokkam na dem ay mbokk lu mën a xew na dem rek la ko ci weti mbokkam waaw ku ko gis wala ak mu déggoog jëkkëram ci li muy def waaw te yàlla bu ko dara jot moom delluwaat euh, ci sëy ba ci jàmm te mair yeeg njëkk yi may nit ñi jàmm nit ñi dañoo bëgg jàmm ci réew mi jàmm ci biir kër yi njaay hmm. kër yi dafa xumb këru Sénégal yi hmm. barke yonente bi li fi ne kenn ñi mu ko wax léegi li xew cité cité Sones hmm. fële Géejawaay waaw amu leen xibaar loolu waaw mooy booyu raxaskatu oto bi doon raxas oto ba jàmbur. waaw waaw doon foo fooyee pistolet ci benn waaw ama amagul ci dara de booy bi tey di dafa waroon doxantu ji. waaw waaw lijjanti leen loolu. parce que dama dama waroon lijjanti mbokki mbokki mbokki booy bi jël pistolet bi. Uh-huh. ak kañu rey aussi. waaw ak ak waa ji ñi moom moom. oto bi waaw ki moom oto bi. waaw hmm. su ma juumul un certain jibi ndaw la. Hmm. ci xibaar yu jot également poste lay liggéey. waaw hmm. eh, borom oto bi. waaw loolu. cest diir dire info yu ñu la jot rek. yu ah. jot nii rek la voilà exactement. Uh-huh. Euh, ki nga xamante ne ji. Hmm? Euh, moom moo moom moo moo moo moom moo moom moo moo ko moo ko rey. Hmm? maanaam borom oto bi ki mu ki mu rey benn menuisier la xale menuisier ndeysaan. Hmm? ndeysaan. fekk bi sole bi ci oto ba di ci foofu ba rayal. nee nee na ci xibaar jot ba tey. day raxas oto bi. waaw bi boîte bi gis ko ci. waaw mu jàpp ne pistolet fowukaay fowukaay. moo am na sax ku mu jox photo bi ne ko damay téye nii nga photo ma. waaw ku mu jox téléphone ne ko dama bëgg a téye pistolet bi nii. nga photo ma waaw après bon. xanaa kii tëjuñu ko woon. xam nga nag ngannaay moom ku ko miinul mënoo ko manipuler. et puis non mais c'est que gars yi ñoo war a tàmm. ngànnaay da nga koy désarmer. Mm-hmm. génn chargeur bi teg nee. Mm-hmm. xool ba xam bal desu ci. denc chargeur bi isolé chargeur bi ak arme bi su ko defee yooyu du am. ah waaw loolu mais su fekkee arme bi toujours chargeur baa ngi ci. mi ngi lay armé. baaxul loolu baaxul. yooyu yëpp sax gars yi buñ lay dañ dañ la koy. dañ la koy dañ la ciy former c'est des mesures de sécurité. Mhm, effectivement ah, effectivement waaye. pour say doom sax pour keneen ak keneen. yéeme na de mais topp topp leen mbir moom. waaw xool incha allah. Uh-huh. ngooñ jaaykatu ngooñ yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey ci jaaykatu ngooñ yi leen jëm. parce que kii. Hmm. njaay hmm. nañu bàyyi nit ñi ñu leen di tooñ. Hmm. ñuy dem justice affaire bi du leer. nit ñi di di di seetaan di seetaan ba musée man Notre Dame waa ji ñu waa ji teg moroomum jaaykatum ngooñam la amal problème depuis daaw ca Covid ba. Hmm. waa ji nangu koo fay dem na justice mbir ma leeru waa ji nag xam naa ne kii ko yoreel xaalis bis bu dajeeg moom. musiba dina am te hmm. du jaaykatu ngooñ bi rek moo kii waa ji rek moo ko yoreel xaalis de. Hmm. am na ñeneen ñu ko yoreel xaalis te waa ji jàmbaar la day jàmbaar. nañ ko déglu. dama mas a gëm justice mas leen di leen yaakaar muy justice Tambacounda dama seq ak benn waay waaw turam mi ngi commencé o santam mu ngi commencé d mu ngi dëkk Liberté Est Tambacounda euh, ci février deux mille vingt bu ma doon liggéeyal ci Misra koto ci wàllu ngooñ mu sàcc sama numéro ci moom waxateeg man téléphone ba yàlla dogal ma ñëw fa xam nga ñun jaakatu ngooñ yi fu ne lañ ñuy déggee te it fu ne la déggee nit ci ñuy yëngu ci ngooñ ba ma fa demee mu yóbbu ma ci àll ay àll benn àll bu nekk ginnaaw jalakoto woon ma ngooñ yu bari macha allah ma ne ko léegi da ngay bàyyi comme damaa ñëwoon pour benn chargement dangay bàyyi bu ma saate chargement bi ba pare. mu toppaat ma di ma woo ba yàlla dogal Covid bi. dugg si mars fekk ma dakaar ñi eh, daal di état état d'urgence mu woowaat ma ne ma am naa chargement bu la neexee ma envoyé la ko suma ñëwee après nga fay ma ko ñu waxtaan ba déggoo chaque semaine mu di ma envoyé chargement ma di ko jaay di ko jox xaalisam ñu dem ba ci juin bi moom OD e moomu mu laaj ma xaalis ne ma dafa gis fii ngooñ mu war a jënd léegi naa ko envoyé xaalis bu doon cinq cent mille bi ma waxee loolu ma laaj benn chauffeur boo xam ne moo war a saata ngooñ bi ma waxee loolu ne moom waa léegi dugalal ko mën nga koo dugal ci sama kii sama Wave ma jox ko ko man maa nekk seede bi ëllëg waaw ndax am na ku ma fa yawal benn manœuvre boo xam ne yebal naa ko fa dem na gis na ngooñ mi ngooñ mi rafet na te it macha allah te kooku tamit ci dëggu rek la ko xamee te chauffeur bi comme yàgg na di ma indil ngooñ ngooñ mu ma indi ci ay mu ma sawaay saate mu ma ko indi ndax saate na ma plus de quatre chargements bu ci nekk un million sept cent cinquante mille léegi ci laa ko envoyé deux cent mille laa ko njëkk envoyé envoyé ko deux cent vingt mille ci laa ko envoyé waat seize cent mille francs après ci laa dajalewaat envoyé ko euh, quatre vingt quinze mille ndax dañuy def luñ jaay rek dañ koy envoyé ndax xaalis bi mënul daje ci laa ko envoyé la quatorze juin mu ne ma léegi oto bi euh, chargé na mu ngi ñëw ma ne ko kan baax na ci laa toog ba ci guddi gi ma woo ko jotuma ko ma xëyaat woo ko mu ne ma Euh, woo naa chauffeur bi euh, mais nee na départ na mi ngi ñëw ma ne ko jox ma numéro chauffeur bi après mu daal di am numéro bu ma jox numéro bi ma jox euh, mu ngi nii ci plainte bi def naa ko ci bi ma joxee numéro boobu noonu ma woo wax ji mu ne ma yow yaa moom ngooñ mi jëm Kër Massar ma ne ko waaw mu ne ma saata naa ko maa ngi ñëw ma toog trois heures de temps ma woo ko mu ne maa ngi toll Koupantoum ma toogaat deux heures de temps woo ko mu ne maa ngi toll Koungheul ma ne ko sëñ bi mu ne ma ne ko dama bëgg nga wax ma dëgg bu dee yaa saati sama ngooñ nga wax ma dëgg bu dee saati woo sama ngooñ wax ma parce que tamit boo ma waxul dëgg tamit lu ci man di am tu es responsable bu boobaa it dinaa leen yóbbu ci yoon dama lay porter plainte doo ci génn mu ne ma comme noonu la demee man bul ma woowati di ko jënd lu mais man kon bul ma woowati comme affaire porter plainte da ci am ma ne ko kon baax na ma woowaat ko dee moomu mu ne chauffeur bi nee na da nga koo menacé moo tax fi mu nii léegi moom seexut euh, ak yow léegi man lay waxal léegi woo naa ko mi ngi toll Kaffrine ma xëyaat suba woowaat ko mu ne mu ngi toll Mbour. Mouhamed oto bi yàgg na ci yoon bi waa ji na ko ngooñ le 19 ba le 27. Mhm. oto bi jógee xaw ma tàmba est-ce que mhm. Dakar. le 19 waaw. Mhm. waa ji. su dajee kii ko yoreel xaalis bi dinañ damay ragal ni dinañ ko xalaas fii. déet mi ngi artu. Hmm. déglu. mu ne ma oto bi léegi mu yegg si Dakar. ma xaaraat deux jours gisuma oto dégguma oto ba le vingt sept juin laa dem Tamba imagine toi oto buy jóge Tamba le quatorze juin ba le vingt sept juin. waaw dara dalu la. yàlla dogal ma porté ko plainte. yoon téye ko une semaine ñu àtte mu ne buñ ko mayee dans deux mois mu liggéey fay ma sama xaalis ma ne tribunal justice bi laaj ma man na ko mën naa ko may trois mois ñu may ko léegi nekkoon la le sept octobre kon ngay ñëw fay ko ko yoon topp mi ngi lay topp un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille nga ko war a jox ndàmpaay mu ne d'accord ñu ne kon donc le six août na ngeen fi ñëw mu ne d'accord policier euh, di fekkee si juge bi daf ñoo waxoon pour ñu ñëw fa ma ñëw bi ma àggee fekk ñëwul ma dem ma wax si juge bi juge bi ne ma toogal xaar ma toog xaar xaar xaar gisuma ko ci laa dem këram ñu ne ma oodee dem na nee na dafa liggéey boobu ba nëgë ni ma ci topp di ci topp ba benn jour ñu woo ma ne ma am nga audience ndax taxul ma bàyyi à tout moment damay dem ci yoon di xool samay desee fu mu toll ñu ne am ngeen audience bi ma àggee def audience bi ñëpp après si ne ma OD léegi yoon tëj na ko six mois de prison ba pare teg ko mandat d'arrêt boobu ba nag ni maa ngi ciy topp aussi mu ngi liggéey fu ne maa ngi ko fay dégg ndax am na ngooñ moo xam ne chargé na ko chargé na ko ci sol na ko ci dëkk fay seeni borom ba mu am un mois ba saa koy di yàq ngooñ moom noonu man lañ ko mujj jaayaat maa ngi koy dégg ci yeneen i dëkk nag te balaa balaa may dem di gisee ak moom fenn ma ne comme dem naa ci yoon boobu ba léegi wax dëgg yàlla injustice laa gis man ma ne léegi dinaa ñëw fii ci RFM ci xalaas may ñaan autorité yi ngir yàlla rasul yi ñi war a wax nañ wax ñi war a jëf nañ jëf yoon dox sama diggante kii mu fay ma sama xaalis ndax damaa ami projet te du ma sàcc duma ñaan du ma yelwaan sama doole ak sama xel laa fas yéene liggéey ba am ba am li ma war a am ndax damaa juddoo ci réew mi màggee ci réew mi te fas yéene tekkee ci réew mi mais bu ma leen waxee dëkk fii ma toll nii billaahi Sénégal bëggatuma fi dara ndax genre escroquerie avis de confiance yi ay nit fi bëgg a dimbali doomu aadama ñemewuñ ko ndax escroquerie abus de confiance léegi nag bëgguma mukk ñu naan waroon naa def lii waroon naa def laa porte naa plainte jaar naa fa ma war a jaar bis bu yàlla dogalee ñu gisante barki alxuraanul karim dana jël sama bakkan wala ma jël bakkanam billaahi wallahi wa taalaahi ndax dama yor njaboot mu yor njaboot ak njabootam duñ nekk ca leen teel conditions yu baax may nekk ca conditions yu bon samak njaboot di ca nekk lu ma ko def dama fas yéene liggéey ngir sama njaboot ëllëg dama fas yéene liggéey ngir samp entreprise ëllëg te it bis bu buñ ko dencoon ak lu mu mën di tëdd te sama xaalis jotuma ci bis bu génnee tamit heure buñ jàkkaarlooyee du yomb li ma leen wax barki alxuraan danaa ko def nañ ma jox sama xaalis dégg nga paas. Ndiaye xam nga pareegul. Mm-hmm. waa ji nag moom dafa waddal 4 millions boori lonage parcelle ba. Mm-hmm. ci jamono ju métti ji. wax ni. bi mu ko waddalee. Mm-hmm. benn xale bu jigéen moo ko for. taximaan bi gis xale bu jigéen bi ko for. bi ko waaj ji fii ci rajo bi. benn taximaan woo na ko téléphone. ni ko heure sàngam. benn xale bu jigéen for na xaalis bi. ba ay nit ñëwoo ko mu naan da koy yóbbu police ak yooyu noonu. Mm-hmm. mais gis nañ ni yóbbuwu ko police. Mm-hmm. xale bu jigéen bu xam naa da ko yóbbu ci ay parents ak ñoom seen. Mm-hmm. pour xale bu jigéen boobu su déggee lii may wax nii. na xam ne borom kaat millions yi ñëw na fii ñëwaat fi pour def annonce bi. parents yi wala ay mbokkam. ay mbokkam 4 millions voilà dañu xam ne boromam mi ngi yëglu mi ngi yëglu. ñoom démb ci suba boromam ñëw na. taximaan bi yónnee wu leen vidéo bi. waaw taximaan yónnee na. na ma naa ko yónnee. waaw vidéo vidéo bu xale bi nekk. waaw bi ñu fa nekkee di wax ci détails yooyu noonu. voilà xam nga loolu wóorul. Ah. donc 4 millions yi. lekk lekkuwul de. mais bi stop mooy bi bu génnee sax. waaw ah. xale bu jigéen bi day feeñ. day feeñ waaye vidéo bi bala ñu koy siiwal. waaw. nañ bàyyi wér ci ne. waaw xale bu jigéen boobu. voilà nañ bàyyi diir rek su fekkee ñoom dégg nañ. nañ ñëw fii. Mm. su fekkee ñi ngi xaas ñu indi ko ñu woowaa ji. Mm. ñu jël su fekkee da ni dàmp mu dàmp leen. voilà Ndiaye. comme yaa ngi doon wax ci ku réer la. kii nee na. Euh, dafa réeral ay pièces otom hmm. euh, oto taxi ba ay pièces yu taxi am DK 48 56 Y. DK 48 56 Y. Hmm. carte grise la licence taxi ci turu Mamadou Guèye Sow. Hmm. ak permis bu chauffeur bi nga xamante ne ji moo yoroon taxi bi. Bamba Sall Baba Sall la tudd. permis bi ci turu Baba Sall lépp ñoo boole booloo réer. ku gis. nga indil ñu ko fii. Mhm. bu ko defee ñu neexal. jaajëf jaajëf Ndiaye. fan sa waa ji dégg balaa ngay continuer. Mhm. waa ji. Mhm. maanaam loxo dafa war a leer. waaw ki ki ki muy wax. Ousseynou Dieye la tudd. Ousseynou Dieye. waa ji daaw ñëw na fi. ba ñu enregistré woon ko ba contacté Ousseynou Dieye boobu. waa mu ne woon nañ ko may bu ñu ko teg dina ko fay. un an après waa ji jaar na fu nekk sottiwul. bi mu ñëwaatee encore waa ji dafa mujjee changé numéro. pour di daw kaa bi. sa fa sës de. numéro ba mu changé. waaw woote waat nañ waa ji. mu décroché di présenté mu coupé. boobu ba tey ku ko wóolu jël moom Ousseynou Dieng. dégg waa ji parewul de te du Ousseynou rek a ko yoreel xaalis. Hmm. njaay nit ñi Sénégal dañoo war a bare bàyyi seetaan bi. Ndiaye yàgg naa la ko fii ci plateau bi da ngay gis passe partout di ma pes. Hmm. nga naan au lieu nga ne bàyyi passe partout bàyyil ki ngay pes bàyyil ki ngay tooñ. Hmm. bàyyi ki ngay tooñ nga nekk fa di wax di ko wax di ko di seetaan di ree passe partout di ma pes ngay ree di xaqataay. ma wëlbatiku pes passe ngan ma lu tax ngay pes par par loolu am ci réew mi maanaam dañuy seetaan nit kuy tooñ nit ka ñuy nit ka di tooñ di tooñ di tooñ ba nga xam ne kañuy tooñ wëlbatiku nu fayu mhm. nit ñi wëlbatiku naan ko lu tax ngay fayu waroo fayu waroo koo toog déglul déet xaaral dañ koy teg waaw man waxtu wi sës na de ah est-ce que doo denc ba suba am na ku ñu wax imaam an moom itam agence immobilière la yore woon te du te dugal Kër Massar boobu ba nëga encaissé sama trois mois d'avance ma di ko topp def naa ko piège bu ne xaar ko ñaa ko fu ne parce que xaw ma këram te dafa tuxu dafa tëj agence ba ko ñaa ko ci beddu këram bu ñu ma tette fële dëkk fu ne te bu ma ko gisee moom xam na ne du yomb ndax def naa li ma war def ci wàllu tribunal dem naa ci gendarmerie dem naa tribunal fu ne dem naa fa dañ ma wax kii ku bëri plainte la fii comme dafay bëri plainte mënuñ koo lijjanti nag man bu ñu jàkkaarloo moom xam na ne du yomb ma lay wax ndoy baan seq naa fekk tamit ku ñu wax Pape Gueye ñu naan ko morge am na lu mu la wax ne defoon naa ko ko nee na am na lu ma ko defoon mooy ki mu nga xamante ni dafa dama ko jëloon pour ñu ànd liggéey di seddoo mu euh, ja ñu liggéey ci wàllu xaal nee na mu wax la ne xaal ja dafa perte te dëgg bu ma jëndoon jox ko muy jaay lekk xaalis bi dem naa ba am naa lu am naa fu jaar ma teg ko lu métti de nañ dem nag bis buñ jàkkaarloo man ak ñoom ñi ndóoy sama alal jii sama bakkan bi laa ci teg waaye seen bakkan laa ci njëkk a teg ñoom ndaw laa di liggéey ñaanuma saraxowuma sama doole laa am ak sama xel nit dangay gëm sa bopp liggéey te xam ne fii loo fi liggéey am ko mais triande sàcc fenn tappale mayul kenn jeunes yi nañ génn dem si àll bi dem bay suuf si loo ko jox mu delloo la ko ak yeneen ak yeneen nit dangay gëm sa bopp man loolu laa gëm doy yi caaxaan ak tappale yii fii ak ñu ngi koy def réew mi du avancé te xam ne ñu bëgg a liggéey ba ñu ngi ci mais dañ leen mayul fu ñu liggéeyee dimbali leen ma ngir yàlla balaa dara xaw moom mii muy oodee fu mu ko gis du yomb imaam imaam jo agent immobilier xam na boppam ca Kër Massar te dafa daw bu ma ko gisee du yomb ku ñuy wax Ibrahima bari Kédougou moom itam rusoon naa ko trop ngir màggaayam mais nag amatu mooy lu may rus ci magam xalaas gis nga ko wàññi moom alalam ji daa lewul bu ku jug dóor dem non wala mbaax gu ëpp la. walla hmm. nit ñi ñu njaay ñoo gëmatul dara ñëw ci rajo bi ba ñi ñuy dóor. te hmm. ñëw ñu ci rajo bi. Hmm. ba ñu ëpp de. Sénégal dañoo mën a jàppale kuy tooñ. dañuy fekk nit kuy tooñ yàgg naa la ko wax ay at ngi mal koy wax. Sénégal da ngay tooñ ba pare am ay supporters. te loolu day indi eh, eh, frustration. kii nii mu ngi artu. ëllëg yàlla tere yàlla tere yàlla bu mu am bis bu daje ka ko yoreel. ñu xeex. maar day taali musiba am ca ñu ni ko waroon a def lii te mi ngi artu dem ne tribunal dem na fa mu war a dem ci rajo bi la mujjee. Ah, mais ah. xam nga réew aussi ban. waaw day dox ci yoon. waaw kon kay nañ régler problème. Ah, kay mais bu mu fayu bu mu dóor bu mu xeex bu mu rey. ah en tout cas mu ci mën di doon. lu hmm? ci doon dabu dootu ko jaral. bu fekkee alal lay yóotu ba tax mu def musiba. Hmm? ñu naan ko tey lañ koy jugé taxawoon fii ak décliné votre identité. waaw dootu ko jar kon nañ réglé lii. waaye nañ jaay yenn saa yi yoon ko réglé mais ñi ko fi def ñëpp dañu koy réglé. waaw waaw koo gis ci kaso ba. ñu ne lu ko fa dugal ñu ne daa fajal boppam. waaw lam lay wax mooy bu démb bu doon tey. kon fajkat yi nañ faj. xam nga problème bi nekk kii ban fajkat yi nañ faj. xam nga problème bi dañ faj de kii dafa sës de. bu ñu demee ba Sénégal ku la ku la tooñ. waaw nga ne ko maa ngi dem ci yoon mun na demal du mujj fenn. du mujj fenn ah, rajo yi lañ gën a ragal rajo yi lañ gën a nee la nag réew moo xam ne da ngay tooñ ami supporter fii la laa ko gis. nga jubilé rek. <laughs> président de la république représenté ko doon programme sa naka résidence goro du président victoire goro président de la république bala bi mu résidence du président la bi nga mooy demande de solution de cadre ka cadre cadre plateau cap de Sénégal construit en 1912 sama ne bala ko na yàgg la bu la clade de officiel du gouverneur général la président de la les ports Sénégal Senghor jaar 1964 ba Diouf 82 ba la 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat ñu xaar mbaxam kii wote ba ko jot président kooku la war a doon ko lay salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam wala Salif Djibi Touré Salif. Salifu Djibi Touré Salifu. Salifu Djibi di wootee fan. maa ngi wootee fii ci ci ci euh, ci Tombouctou. Tombouctou. Tombouctou ci Mali. Tombouctou ci Mali. waaw. ah waral sa woote ci biir palais bu Sénégal ma bëggoon a waxati du ma bëggoon a waxati ak ak Paris ma ko Sall. Mm, waaw da ngay wax bu ñëwee ma jottali ko. mënuma ko jotu. déedéet. ma wax ak yow nga yóbbati ko moom. waaw. ba dina ci jotu. ma ne yow kay waxal li nga wax rek. du moom mu nekk président CEDEAO ba léegi. Eh, te te te te dama laaj rek dama laaj rek. man dama laaj rek su fekkee ma nekk ko nga nga waxu. ma ma ma ma ma dafa daa da ngaa da ngaa am message booy wax wala amoo message booy wax. amuna amuna waaye foog ma laajee ba pare. bala maa léegi waxal message bi bu ñëwee ma wax ko. moom moo nekk ba léegi président CEDEAO du waa voilà. Marie président CEDEAO ak président FMI ak président. yow ña gën a gërëm sax ña gën a gërëm sax de. yow ña gën léegi moom bu ñëwee nga waxu ko. waaw. na ñëw mu dimbali Mali mu wax ci ak président yi ñu ñu bàyyi euh, dóorante bal bi ñu wa bàyyi kudute bi ñu bàyyi xeexe bi. di nga Mali dafa am xeex. a ah, ah bu dee kay xanaa xooluloo barke de Mali nga xamante ni moo moo Ah. ñu ngi jël président bu def tout am tuuti kon candidat amu amati encore. Ah. toujours Mali toujours Mali toujours Mali. ah waaw mais loolu léegi loolu lu ci ma ba Macky Sall mën. waaw Macky Sall moom xam nitu nitu nitu nitu paix la te moom bu waxee ñu ma dina ko déglu. Hmm. na ñëw fii mu waxati ak i président yi ñu wax ñu def vote yi. Hmm. moo génn yu démocratie yi nga xamante ni moo moo génn ci nit bi. Ah. moo gën a baax ci nit yi bi maanaam daal yéen da ci dëkk bi ñu ngi ootee wàllu mu mu mu sauvé ñu da ngeen di woote au secours te waxuma au secours wax au secours dama dem ci tubaab bi ma wax au waaye dama ñëw ci nit yi bu ñuulu Macky Sall mu ñëw mu dimbali ñu ah. mu wax ñu ak ak président bu Mali mu bàyyi coup wax ak militaires yi ñu bàyyi coup parce que bo boobu baaxul de baaxul ah. parce que suma maam dafa daa wax ni Mali ba dee la ne bii daa boo Mali ba dee ah ngooni fo jali banga mali ba de la ah boobu bu ñu jëli boobu bu fekkee koroboro da nga ko wax wanda ga yene jërëgen de ah eh, ala barka koroba kani waaye su fekkee dañu jël guerre rek ñu def ko mali mali kañ la su xoliku dara day waar de dafa day waar dara day waar de ñu bàyyi jayintu doole bugg nguur hmm. ku toogoo ku toogoo benn faana ñaara fate keneen mu ñëw ne ko nga jugali keneen toogu boobu bu ñu ko bëggee nañu dafa voté waaw ñu bàyyi keke bi ak yam bi ba léegi wi ba loolu doo nga doon yóbbante bi loolu laa ne ko ne ko soxla nañu ndimbalam torop mu yónni mu yónni mu ni tere mu ñëw ja léegi yow lan nga wax sa mbokki malien yi nekk Sénégal ne leen ni ne leen ni ngoni fo koro muso ñuma bawnga maliba de la masake ñuma bawnga maliba de la ngoni fo ñuma bawnga maliba de la kene ka pour ke ni maada girgini gini gi acha girgini gini gi girgini gini gi votre correspondant peut-être c'est pour le moment vous appelez ultérieurement girgini gini gi girgini gini gi girgini gini gi